فلا للغير مثل سرادها جيلي من يدي جميع بكل وتوسل بالممدود البراء يا أغلى البرايا وساخا وأكرمها إن الذي يدلي بالميم والنون يا رب يا محمد الفاضل لي توك دي دومي سيري مكي na waxtu wii saa yu ma saa jot yàlla di ma taw féexale may fekke lii boobu may tollu ndàngal ma rek laa ko ni ko baa jébilew goo mu ma ñoo ngi ci yoon waaye xañ na bala ngay agsi dina fekk ñuy pare bi may gaare rek lay tomanteeg muy génn ma àndanteeg moom agsi fii ci yow di ñaan na jataay bi yàlla mu doon sunu muñu jataay ci barkeb sëriñ Touba bis boo xam ne nag Touba Njiliween gépp war na ànd ak tey mi ñëw di la ci barkeb sëñ Touba ak sëñ Bay Cërgaan sa jataay bi yàlla na yàgg nu yéene la ko lool nag ndax waxan naa la ko waxaat naa la ko li nu mënta ñàkk mooy yow muy sëriñ màjj lañ mënta ñàkk te yàlla teg la fi ngay moom te ñu nangu it dogalub yàlla ci moom ci yow ndax nit su dee jaamu yàlla di liggéeyal yàlla te xolam bii dara des ci ci kiñaan lam bëgg du ko am man naa laa waat ci sëñ Tuubaa nag man sëñ Abdoulaye wax de sama xol bii daray kiñaan nekk sama digganteeg yow te lu ma la yéene lu dul lu baax yàlla naa ci jiitu kon assumé naa sama responsabilité fi ma jëm xam naa ko it bu baax te nangu naa ko su ma maneeg su ma tëlee man na maa waat jëmmi sëñ Tuubaa ku dul yow yaa ma ko gënal ndax sëñ Madji rek la am te yàlla ko sëkk sagal kër gi si siggal kër gi waaye nag sa bopp ndax dañ laa dénk te lu yàgg-yàgg di nga daje këla dénk te bëggoo lim la dénk ruur te nuy sang njaboot te bëggunu nun ñu ànd ak yow sunu dara ruur kon njaay yal na fi yàgg di ñaanal gor yu baax yii nga xam ne dama ànd ak ñoom muy góor ak jigéen muy mag ak ndaw kenn ku ci nekk def na ci alalam mbaa mu def cim xelam te bëgguñu lu bis bi jàkk ndax ki ñuy defal bis bi moom ki nu ci boole muy Cheikh Mouhamadul Majid mat na lu ne waaye man na lu ne def na fi lu ne it ci lu yàlla gërëm tey nag yaay moom ñuy say taalu bi di rek rak xooliwuñ la benn bët bëtum magel man sëñ Abdoulaye wax de ak rak yi topp sama gannaaw te nu bokk sëñ Majid la ko dale ci man mii ba ci kajin caat bëtëb kilifteef rek lañ la xool suñ ko matee nag moom lañ la xool suñ ko tëri lool moom lañu la xool kon noo ngi ñaan njaay sang yàlla na nga yàgg ak nun te yàgg fekk te xam ne nag ay gor lañu doon yu ànd ak yow loo xam danoo bëgg dara te xam na ne gaal gi liñ ciy denc ci yaaru caabi ji te ko ubbil mu xaj yàlla nag nu ubbil ñu ngi lay sant bu baax cant nag daa mën tawee su cant waaye mën naa la watt sëñ Tuubaa si sëñ Mbay Cargaan sant rek la ñuy def loolu nag muy li sama xol te muy dëgg di ñaanal góor yi yéemaandal kenn ku nekk lam bëgg am na fi man nga ko tamit ci sa loxo loolu lañ ci dotteel ñu am muy góor muy jigéen muy mag ndaw ay gor la ñu ànd te billaahi wal kitaabi ràññi naa ci nit ñi ñoo xam ne daanaka ñëpp kenn ku ci nekk maa la gënal sa bopp te lu mu am man na ma koo jox ngir yàlla kon noo ngi sant bu baax góor ak jigéen mag ak ndaw nag sopp yi dañ cee bari te lu baax rek lañ bëgg kon njaay yal nanga fi yàgg te nu yàgg fekk yow na nga xam ne daal say taalibe lañ say jaam lañu sa baay rek lañu am tey tey yaay sa baay kon njaay yal na jotaay bi yàgg noo ngi jégglu nag bu baax noo ngi jégglu bu baax waaye góor ak jigéen mag ndaw kenn ku ne lu baax la bëgg te lam am def na ko ci kon Ndiaye mbooloo maa ngi noonu yaa ngi noonu noo ngi nii jërëjëf. sëriñ bi mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen masawu di leen ndokkale xam ne bis bi ñun ñëpp ko bokk sëñ Abdou nag sëriñ bi mi ngi lay sant bu baax a baax a baax Euh, di sant mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Majid waaye di sant mboolem njabootu Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane di sant waa penc mi yépp nag gis na taxawaay bi ku xool taxawaay bi rek xam ni wax dëgg yàlla si ay coono la jóge waaye waxtu daf ñoo dab ndax waxtu tisbaar bi léegi mu jege waaye nag sëñ Abdou sëriñ bi ne na mi ngi lay sant man mii de am naa ci lu ma ci war wax lu leer loo xam ne fekke naa ko ndax Serigne Fallou mii nga xam ni tey maa ko moom sama doom la moom laa àndal nii ñu ko Serigne Fallou Ndiaye moom Cheikh Mamadou Majid mi ngi nii taxaw bi mu juddee Pikine tali bu bees Serigne Abdou mii moo ñëw tudd si ko mu ne ma loo jàpp ci tur ma ne ko ah sama sëriñ ñëw na muy yow ma nu may def mu daal di noddu li xam ne tudde naa ko Cheikh Mamadou Fallou moom sëriñ Majju loolu sedd la tey mi ngi nii defe naa déwén la war a def bag kon li nga wax sa diggante ak sëriñ bi ñun xam nañ ko waaye ñun ñoo gën a war a laxasaayu war gën a góorgóorlu war rek ñaanal ko di yalwaanaat suñu borom suñu borom gën ko fi yàggal ñun loolu rek la ñuy yalwaan wax ji foofu rek lañ koy tënk bu ko defee sëriñ bi doo koy yàggale cant gi ak ngërëm gi jërëjëf Ndiaye. sëriñ nag nee ñëpp nag nee mi ngi leen sant bu baax si taxawaay bi nee na kër sëriñ benn kër rek la nee na ndokk nag bi nga xamee ni xam na ni benn kër la ñu def ko muy benn kër nee na yàlla na ko sunu borom yàggal nee na jëmm jooju di seex Mamadou Majid nee na waxtu tàkkusaan la ko woo woo Baye Góot Jóob mu toog mu ne demal wàcceel ma bépp dongo boo xam ne mi ngi ci daara yi te ñëpp fekk ma ci kër gi nee bi ñëpp ñëwee nee na mu ñëwee nee na dem leen ci kër sëriñ Fallou mu diggal leen te tere leen sëñ Fallou nee na mu jaaxle lool nag ndax amul lu muy wax nee na mu dénk leen nag ndax sëriñ bi moo yebal ci moom mu digal leen ca tere leen sëñ Fallou nee na kon nag moom li mu waroon def rek mooy diggal leen te tere leen nee na ñu dellusiwaat si sëriñ bi toog. mu ne war leen ba Serigne Fallou Serigne Fallou nee na ma ñëw toog ci wetam ci kanamam mu ne toogal sama wetu ndoy jot daal na gees dongo yi ne leen jébal naa leen Serigne Fallou bis mi ki tey seen cër sama diggante ak sunu borom jeexal na ko tàkk dénk naa ko sëriñ Fallou sëriñ Fallou mu ne ko Njaay mu ne ko dénk naa la dongo yi. ndax dongo yi lépp lu ma ci digle lu mu dee fi digle te jaaralu ko si jëmmam ji nee na bu leen ko def nee na lu mu leen maa def bis mi ki tey boo leen ko defee daf ngeen ndigalam sëriñ bi tàllu de nee na loolu moo ko bàyyi mu toog yàlla na yàgg njaay sëriñ Abdou sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax a baax nee na yéen rakk yëpp Nena serigne bi mom la len jébbal nee xalé yi mujjé judd yépp mo len yobu ci daara ja nee ñu joggé xelkom oto baay maas badian la len yobé nee bu muy sombé sombi bi ba nopi nee mën ta fekk fi koy nané daf kaa wo ci néegu biir ba nee na nanga ma yóbbu yóotal sëriñ Mbacke lii samay doom la donc na boo demee na ko damaa bëgg ñu yaru te am ñu xam-xam na ko gees na ko Serigne Fallou yóbbu ma la fa ngir njëbbal damaa bëgg ñu am xam-xam damaa bëgg ñu yar leen nee na waaye sama kër bu ma sañoon du doon yaari kër mukk ma seen képp kuy mag. bu ma seen képp kuy mag. mu topp la sëriñ Fallou. ngeen di génn kër rek. ngeen di benn kër rek. lii la sëriñ batale. sëriñ bi de sëriñ Majju de lii la batale sëriñ Fallou. ku def lii. nee na ku def lii. def nga ndigalu sëriñ Majju. ku ko deful. nee na teg nga fi ndigalam. nee na sëñ Abdou nag sëñ Fallou nee na yaa ngi ci yoon bi Ndiaye. nee na yàlla na sunu borom yeggale Ndiaye. sedd na bu baax nee na xolam sedd na lool Ndiaye waaye nag ñu gën a laxasaay waat nag Cheikh bari nee na Cheikh njab Cheikh Babacar Thiergane ay njabootam ñu ngi fi li mu jur dafa bari nee na li mu jur dafa bari fenn fu ne buntu kër ubbi ko nee na fenn fu nekk nag buntu kër ubbeeku na buntu kër bii de nee na na du naax saay Fall nee na loolu rek la ci teg nee na kenn dem ba ko nee kanam rek nee na kanamam nee bañal na ko jërëjëf Ndiaye jërëjëf Ndiaye geesu rek nee na geesu rek waaye ci kanam nee na waaye ci kanam nee du kenn nee na nan góorgóorlu waat baax a baax sëriñ bi nee na du ma yërëm ab taalibe nee na taalibe bu la bu ko yàlla booleel nee na taalibe bu leen yàlla boolee nga yërëm ko nee na yaa ko lor da nga kaa def loo lu mënul def ko lu mënul sëñ Touba de nee na ku ma lebal ker ba fay la guddi ku ma defal loo mënul ma fay la loo li la jomm nan baax baax nee laxasaay waat bu dëgër bañ xool lii te xool ëllëg la ñuy mooy jëfe ndigal nee na mooy jëfe ndigal bàyyi bàyyi tere bàyyi ab tere kon yéen ñi ànd ak moom nee na kon nag ñun ñu ànd ak moom jëf jëf ju toll nii jëf jëf rafet ji teg ko ci loxoom teg ko ci loxoom na ngeen rafet njort nee na nan gën a rafet njort te gën a dalal suñu xel topp ko te topp ko te déglu ko te déglu ko te xam ne lu ñu bëgg lépp mi ngi si moom su ngeen bëttee ñag bi nee na boo leen bëttee ñag bi nag ñëw si moom te jaaru leen sëñ Abdou nee na da ngeen di perte rek jërëjëf Ndiaye jërëjëf Ndiaye waaw Ndiaye waaw sëñ Abdou nee na li mu bëgg lépp Ndiaye mi ngi si yow yàlla na yàgg lool nee na nañ góorgóorluwaat bu baax nee na nañ gën a góorgóorluwaat baax nee na waa kër Cheikh Mouhamed sëñ Mbacke soxna loo sëñ Moustapha Mouhamed nee na sëñ Fall nee na bëggul kenn ko fa mën ci hmm. nee na nañ góorgóorluwaat baax a baax nee na lépp nag sunu borom rek la waaye nag ku def la nga mën wàcc nan gën a góorgóorluwaat bu baax te gën a laxasaay waat bu sëriñ bi diglee ndigal li nan nanu gënal suñu bakkan jërëjëf bu fekkee bu sëriñ bi amee lu mu bëgg rek ñun ñu am lu mu bëgg sëriñ Abdou jërëjëf jërëjëf Ndiaye sëriñ bi nee mi ngi sant mbooloom yëpp nee mi ngi sant soxna yëpp waaw gis na leen taxawaay bi rafet na waaw nee la rek jërëjëf ba Ibrahima waaw waaw waaw sëriñ bi nee na yàlla na suñu borom gën a guddal fan yi doo doolu yaatal wërsëg yi barkeel njaboot gi jërë ngeen jëf xolam sedd na lool Ndiaye jërëjëf jërë ngeen jëf ñan tàllal loxo yi waaw waaw bisimilah <laughs> amin yaa rabbi hmm? jërëjëf sëriñ bi nee na xolam sedd na lool waaw waaw Ndiaye jërëjëf Ndiaye jërëjëf waaw jërëjëf Ndiaye jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw رضيت عن المولى تعالى الذي ربى وادي واغناني واكرمني رباه قديما دواما بالذي اختار عباد به خلقنيت اليوم عبدا بذكري وأني يقوفنا روى النار وسبا نبس لقال الله عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب الهدى سبا أرتل ما دمت حيا وأكتفي باطل وفارق تدبيري بي دفع رديت به ربا كريما مكرما وقاني الهدى والهرب والبلاء dama ba dama waaw mat naa mat borom bés amin waay ñaan rek fekk bis bi kontaan nga ci de di ci sant mhm. di ci sant sëñ Babacar Thiergane di ci sant sëñ Abdou Moussa Ndiaye suñu borom na daal lépp rafet na kon daal yaa ngi koy ñaanal ci bés bi. guddi gi fan bu ànd ak wér. xéwal mhm. gu yaatu. Mhm. ba déwén dàq ren daal la ñaan. Ah, lay wax ci gan ñi fi ñëw. waaw gan ñi moom maa mhm. ba ñëwee ba léegi ñu jàpp si liggéey bi. kenn toogul. waaw wax dëgg si yàlla ba ñëwee ba léegi moom ñu ngi ci. macha allah.